alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa fi may tegee mooy ndaw yi parce que jotaay bi ndaw yi moo ko moom ngeen baal ma ci kàddu yi nag bu baax a baax na bàyyi li mu oote mooy faydu faydu la bàyyi oote ootewul diina ootewul tariqa tijaaniya diina yonent yi moo ko oote bi bi mu ko ootee ñu jox ko ndigal mu koy oote di dem di dem su amutoon fatxu makkata konoon ooteem bi amul résultat konoon yonent bi dafa niil ooteem dafa niil bokkatut mais fatxu makkata bi mu am moo ko may résultat bi mu am tey ci diina parce que boo leen jàngee téere siira ngeen baal ma awma ma xam-xam gaa wante mu ngi wax Cheikh euh, Aboubacar Sadiq ne ko maa ngi dem li gën a neex si oote mooy nga oote sa mbokk yi gëm la topp la ànd ak yow wante maa ngi dem de waaye dinaa desi te ñoom ñëpp dinañ gëm bi mu demee am fatxu makkate ñëpp a gëm chema ci radiallahu anhu bi mu ootee ootem bi soo waxutoon tati faydatun ootem bi day niil amul résultat mais da koo wax rek ngis gars yi gis résultat yoon ci bi mu waxee fatxu makkate ñun ñu ngi xara tariqa ci bi nga xam ne si la waxee astafurlah salaatu fatiha la ilaha illallah wéetal mu raxas suñ xol yi yóbbu ñu si nafsul mutmainna kase kese la ñuy yemale fuf rek bi mu waxee tati rek lañ xamné ne ah radiyatu mardiya mu ñëw bi ñewé ci si radiyatu mardiya mi faydu bi bay indi tay mané ne dugal istati nan jël jefee bay ta xamoo yàlla yow waroo ko wax bay lu mu la defal def istati parce que istati mo xew def istati nan baye deug te xamoo ni bàyyi nekkee dëgg dangaa ñeme yàlla daf istati na bàyyi rek ay sëriñ te xamoo ni mu nekkee rek ay sëriñ dangaa ñeme yàlla daf istati na man taalibe bàyyi laa te yow tarbeewoo dangaa ñeme yàlla waaye itam daf istati na man soppe bàyyi laa doo soppe de xamoo tax doo soppe yonent bi sallallahu alayhi wa ñëpp d'accord nañ ne yàlla moo ko tànn mu nekk soppe bi yàgg wante fan la xamee na soppe la si rañaanam la ko xamee yoon ci yàlla Moussa dafa ñëw ba si buntu pee bi bëgg dugal dàllam yi ñu ko sumbil parce que jëfee ñu ko teggin man suma ma ñëwoon kër balaaji mii bëgg dugal sama dàll yi danaa ma summi ko si biti waaye su ma ñëwee summi danaa ma dugal dugal dugalal lu lu ma may loolu mooy teggin yoon ci bi mu ñëwee rek dafa gaaw summi yàlla na ko dee solal solal yow Habib nga ah foofu la yëgee ne man nekk damay soppe yàlla bi foofu la ko yëgee de bàyyi itam gis naa si Seydi Ali Cissé mu wax ne radiyallahu mu ne bàyyi waxtu bu la tarbiyewaan yar la ba pare bu paree yow rek li lay wan pare nga yow rek mooy reetaan day ree war na la pare nga waaye itam soo bëggee nekk soppe bàyyi bëggee lu bàyyi sax sax xol bi nga xam kuy bàyyi ndax nit ki mënoo koo bëgg te xamoo ko Cheikh Abdou Malick mii bëgg gi nga ko bëgg ba di ko roy solinam ak doxinam xam gi nga ko xam mi romb fii par guddi par waxtu juróomi jumaa yi ñu taxaw fii di ko roy bu doxee gauche ñu dox droite te du ko yëg am na wala amut bu solo yëreeg ñaw ñu foto ko dem yóbbu ko téeri ñaw la ko lu ñu ko may xam gi nga ko xam suñ ko xamutoon loolu du am yow mi dëkk Medina wala dëkk fudul Medina te xamoo yàlla jote yow ak dara yow dëggaloo Baye Niass dëggal Baye Niass moo ngi ñëw jàpp ci lim oote su ma ne am naa 5000 bala nga maa dëgg nga ne ah gis naa ko de soo ko gisee da nga ne waaw Ousmane am na 5000 la ko may gis gi nga ko gis Baye itam bu nekkee ne da nga koo bëgg a dëggal lim oote da ñëw tarbiyu تبل وخني بيبي او غوما دي نو نو داكور ما لولو يونت بي بيم واي وما ارسلناك الا كافه للناس باركون واتي لا اموت كودامون رك ياتي سا واي باي اتم بيم تخاوي وهو قد تم فتحي عند مهدي وقد عانت جميع رجال القيب تحت قدائي بيم تخاوي فلا عارف الا بابي واقف بيم تخاوي وما قلت قولي شاتحا متبجحا يولو خار نيول تويت وسهلت طريق الى الحق لكل مريد الوصل للحق بالحق تا نون خم نانشي دارا من بوك نكودول باي سيرن بي سوخلو وين كودول باي نياس بركة علاجي ابراهيم نياس لب لي مون ام بوك باي مون غنال باسكو خم نان لمغي ديف خم نان كو نين كي دنج ييك سون خولي دامي واخني باي موني ماغالو نون ناو ييب باي موني ماغالو باسكو لوتاخ دانيو يان لي اتونوت كون نك يي ني تربيو غوت جوتاي بي لول موكو تاخو جو كاسه دو لنن نين دم تربيو جي خم يالله suñ xamé yàlla xam xàq suñ doom suñ bayyi tok suñ xamé yàlla xam xàq suñ magi tok suñ xamé yàlla xam la moy xàq medina ñu mën ko waral taxawal shabab da ngay liggéel bàyyi ta xamoo yàlla bàyyi dula fay nit ki boko liggéey dalay xam ñi ma ngaa bay toolu jàmbur boo xamul da lay dem nañ xam yàlla ba pare sogo liggéel bàyyi nañ xam yàlla ba pare sogo bëgg bàyyi nañ xam yàlla ba pare sogo jeex ci bàyyi suñ xamul yàlla nak dara kon nañ dem xamee yàlla ma ngi jéglu bu baax ci kàddu yi. وما الله السلام عليكم